yow mi nga xam ne dund nga foofu parce que maa ngi dégg nga ci sa biir wax nga ne ñooñu fi ñu fa ba doon bëgg a génne ñu bañ ñu jëlee leen foofu bu ñu demee feneen dañuy dañuy rampewaat mu mel ni euh, prison bi dafa am benn genre promotion boo xam ne euh, dañ ko fay def parce que soo waxee ramper sa jóge ci étape dem ci beneen étape mais si côté confort laa ko mën a xalaatee mm-hmm. euh, ramper boobu condition yi pour pour mën gravir échelon yi lan la euh, genre euh, pourquoi ñoom ñu war a bañ ñu jëlee leen fii déplacer leen fële nga ne dañuy suñ demee kon dañuy ramper waat recommencer waat à étape yi ñu yi ñuy kii lan la merci si question bi nga xam kaso dafa am règlement. Mm-hmm. tey bu ñu la xasee chef de cour c'est la responsable de prison bi man li may wax dama ko ñeme dama ko assurer. Mm-hmm. parce que man dama ko dund. Mm-hmm. man nekkoon naa chef de chambre. man ñëw fii di waxantu lu ma wax je suis comprendre nga. Mhm. chef de cour bi moom moo yor léegi moom moo géré. d' abord est que tu as compris man li pour après nga continuer est ce que tu as compris sama inquiétude quand je t' ai dit mën nañ la woo. Euh, pour pour ay enquête est ce comprendre nga ne man je m'inquiète juste pour toi mais je sais pas de te dénigrer est ce comprendre nga loolu soit c'est que tu pour moi mais je suis responsable ah, de média laa yàgg naa taxaw di wax mhm. man li ma wax noonu man maa je suis responsable ça parce que man dama bëgg pour Sénégal développé dama bëgg pour ndëpp ndëppal bi jeex fii fii Sénégal bu ñu gisee loo xamante rafetul bu xam nga tey boo nee sax man lu ñu ma envoyé àdduna bi ñëpp gis nañ ko. Mhm, mhm. waaw kon ku ma woo ak ku ma woo amul sens. comprendre la bon léegi bu ñu la boo nekkee ci kaso chef de cour moo yore néeg yi yaa ngi comprendre bu ñu yore néeg yi néeg yi dafa am moom da koy jël dugal la fa bu ñu dafa dugalee tant que amoo infraction xeexoo fa gaañ fa nit dafa am règlement yoroo fa lu ñuy tere yoroo fa yàmbaa yoroo fa def naa déconné woo fa nit amul droit jëlee la si néeg boobu yóbbu la si beneen néeg un prisonnier boo ko nekkee mhm. da nga am say droit nit ki ça ne veut pas dire que tu es nekkatoo droit gars yi jàpp ñu ay xar wala ay ginaar wala ay bëy gars yi nit la ñu doomu aadama dafa fort ñooñu tam dañuy tëdd ay longue peine yu metti ñoom dañuy ñëw ne dañ leen fay génnee ci néeg bi sans motif sciencal tey ngay tëdd vingt ans mhm. ñu war a génnee ci néeg bi yóbbu la si beneen néeg boo xam da nga parce que prison Sénégal dafa surpeuplé dafa nekk prison boo xamante ne prison bi jël mille cinq cent personnes def nañ fa trois mille personnes mhm. loolu du yoon te pourtant prison campénale am na ñoo xamante ne ay 20 ans lañ leen tëj ay 17 ans am na ñoo xamante ne donc ça veut dire confort bi ñu doon am fii. Ah. bu ñu leen fa jëlee yóbbu leen fële. dañ koy doo ko am parce que da ngay ñëw ci néeg boobu néeg boobu day fees. Mhm. néeg boobu day nekk 200 personnes. 200 personnes yi am na cent 150 ñoo am place 100 yi amuñu place place yi toppante la il faut kenn ñibbi. keneen jël place su kooku keneen ñibbi ba pour nga am place nga fa def 6 mois ou mois doo am place. te nga def fa vingt ans te di sa place di yaru ñu carrément ñu bëgg la retourner à zéro comprendre nga même tey prison nit ki boo koy fuyee sax gars yi amuñu droit jàpp gars yi di leen dóor di leen torturer gars yi duñu ay mala gars ay nit la ñun Sénégal la ñuy nekk mhm. yaa ngi comprendre mhm. prison camp am na ñoo xamante ne dañu am seen àq ak seen jolof te pourtant yor daf ko violer mhm. am na ñoo xamante ne depuis jamonoy cour d'assises ñi ngi foofu tëdd nañ ay 17 ans ay 15 ans ñu àtte leen cour d'assises cour dañ ko soppi def ko chambre criminelle mais ñi nga xamante dañ leen àtte woon cour d'assises jamono Ablaye Wade Macky Sall ñëw na réglé wu ko président Ousmane Sonko moo fi nekk mais ñooñu bu ñu ñëwee taxaw dañ leen xamal ne carrément président Diomaye mhm. ak Ousmane Sonko mais dañ leen xamal ne carrément yéen Mm-hmm. mënu leen am grâce mënu leen am liberté conditionnelle mënu leen am euh, remise de peine est-ce que loolu c'est normal te pourtant ñooñu ñu ngi ci biir kaso bi def ay 17 ans ñu def fa ay 15 ans te ñoom seen ak seen yooleef leen ko juge dëmbale ñëw na foofu juge d'application de peine xamal leen di carrément yéen yéen nekk seen droit mm-hmm. li ngeen di kaas nii seen droit la dañ leen ko war a jox te ñoom jox te pourtant ñoom grève ñu ñu ngi toog ñu ngi toog grâce bi passé tout récemment bi passé ci tabaski bi président Diomaye toog na Korité deful mm-hmm. grâce Mhm. présidentielle dafa waroon def waaw dafa waroon def grâce 4 avril bi passé deful grâce. Mhm. Macky Sall bu mu toogee en 2013. Mhm. premier toogam def na ngan di grâce prison camp pénal bàyyi plus de 80 personnes. bàyyi ñoo xamante ne ay 20 ans lañ leen tëj ñu dawal 15 ans mu bàyyi leen bàyyi ñoo xamante ne 12 ans lañ leen tëj. mu dawal 8 ñu bàyyi leen. dinañ ci ñëwaat il faut pardonner parce que bu ñu pardonner woon tey président Diomaye Faye du nekk président.